rawatina nag su fekkee dafa nekk mutatarrif mooy dafa nekk extrémiste nga xam ne àgg na ci dënn bu xat foo xam ne lim gëm mooy ku wuuteeg man gisin rek sa bos baaxul waaye soo ca yemoon sax mu tane waaye comme que sa bos baaxul kon yow bid'i nga comme que bid'i nga yow faasiq nga comme que faasiq nga yow kaafir nga a'uzu billahi min ash-shaytaani rajim loolu nag suñu ci àggee fila la musiba yépp di xewee su ko defee kon jëmm ji nga xam ne moom lañuy ñuy màggal di jëmmi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nañu xam ne màggaluñu Muhammad Muhammad ibnu Abdillahi ak Amina Muhammad rasulullahi moom lañuy ñuy màggal te risalatu yonent bi mooy mission bi du mos a dog ba mu fi nekkee mu ngi fi bi mu fi jógee day continuer ba faw te màggaayam day continuer di dem ba faw mu mel ni màggal ko ci jaamu yàlla la tudd waaw tawassul maanaam jokku sax ci màggaayu melow woowu nga xam ne ba mu nekkut ci yonent bi kenn defut ko woon waaye ba mu ca nekkee ñu man koo def ngir melo wi ci yàlla la jóge loolu jaamu yàlla la loolu dañ ko war a xàmmee moo tax soo ñëwee ci nit ñi nga xam ne dañuy gëm ne dañuy def ximaaya janaabu tawxiid maanaam dañuy aar li ñuy tuddee nekk kenn ki yàlla ki wéetu ki yàlla gi am na loo xam ne sax soo ko waxee ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne la shirkun bokkaaleeg yàlla la waaye fekk li ñuy fàtte mooy su fekkee ne muhammad zaatu muhammad jëmmi muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga kooku dem na gisatuñuy loxoom ak i tànkam ak nangam su fekkee ne muhammad muhammad ibnu aminata ak abdullahi la maanaam muhammad bachar rek su boobaa mën nga wax dëgg waaye su fekkee laakal bachar su boobaa li nga wax amul taxaw ndax li li laakal bachar boobu sifa la melo la woo xam ne ilahiya sifa rabbaniya la sifa rububiya la boo xam ne melow yàlla la mu takkal ko ci yonent bi te mooy risalatu mu jox yonent bi azama jox ko sharaf jox ko dayo boo xam ne loola day continuer ba ba faw su boobaa loola tedd ga tedd nga ga du mos a jeex loolu mënuta nekk shirk su ko defee waaye yooyu la yëpp it borom it doo ko yedd lool ndax foofu la xelaatam tollu te itam xëy na yéeneem rafet na li mu ci jublu mooy pour def li ñuy tuddee ximaaya janaabu tawxid xanaa rek su ëppalee nag su ëppalee ba dem ba gis ki wuuteeg moom xelaat ne kii mubtadi la ba yéefarloo ko comme ni ngay gis ñenn ñi tey masalan mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam màggal ko am na ñoo xam ne fi ne bidaa lañ koy tuddee te ci seen gisin sa bidaa mu kaffira la waxu malaa nag ziyaare nit koo xam ne masalan ziyaare eh, diw sàngam pour ñu dajee tudd mbaax ak kooku ndax nit ñi xeme mbaax gi lu ci ne diina def ci kontaan lan moo fi indi siira lu tax ñu bind ci téere yi siiraab yonent bi sallallahu alayhi wa siiratu saxaaba chamail yi ah? li ko indi mooy pour nit ñi di ko jàng ndax ñu mën a xemem ñooñu te nag nit ku baax nit ku baax rekk la mbaax assalaaxu salaaxun moo xam salaax ba ci ci jamono yi yonent bi la sallallahu alayhi wa ali wala ci gannaaw yonent bi saa salaam ku baax rek mbaax nga yore feeg sa mbaax gi yaa ngi ko jëlee ci mbaax ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mbaax gi dafa jokk su boobaa benn benn benn yoon bi rek la benn buum gi la amul dagg-dagg su ko defee yooyu xàmmee ko dafay baax kon maa ngi woo mboolem koo xam ne déglukat la ne nañu nekk benn nañu nekk benn ci kër yi diggante jëkkër yeeg jabar yeeg doom ya nañu nekk ci benn ci dëkk bi diggante borom dëkk beeg ñi nga xam ne ñooy caawo gi nañu nekk benn ci kër sëriñ gi ñi jiite ak ñi nga xam ne ñooy taalibe yi nañu nekk benn ci réew mi ñi nga xam ne ñoo jiite ak ñi topp ci gannaaw nañu fàtte suñu wuute yu sew sewaan yile nga xam ne amul benn njeexital te duñu indil benn njëriñ te yàlla sax xoolu tegut ci bëtam muy tax ñuy war di noonoo di xuloo di ŋaayoo nañu bëggante nañu soppante nañu dimbalante loolu moo ñuy may doole moo xam kër gi la moo xam mbedd mi la moo xam dëkk bi la moo xam réew mi la moo xam diine ji te loolu it mooy li gënal sunu borom subhaanahu wa taala wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu yàlla mu ne wuute bi nammut ci lu dul yombal liggéey bi dong waaye li nga xam ne mooy mbir mi moo ko tax a jóg mooy ñu nekk benn fépp foo xam ne nekk benn mënu faa mënu faa am développement du mën a dem te nekk benn li ñu koy mën a jox mooy bëgg moo mooy ubbi dënn di waxtaan ak bëgg jàmm kenn ku ci ne fàtte sa intérêt su bopp di jiital intérêt su eh, eh, eh, mbooloo mi loolu suñu ko defee rek danañu déggoo rawatina ñi ñuy tuddee borom xam-xam te problème bi ci ñoom la ëpp xaw ma ndax man ci laa bokkam déet waaye borom xam-xam yi tey problème bi rawatina borom xam-xamu diine yi problème bi ci ñoom la ëpp ndax soo seetee lii xew ci àddina bi lépp ci turu diine la comme ni ma ko waxee kon nañu seetaat suñu bopp lii ñuy tuddee nag naqdu zaati yi mooy ñu li ñuy tuddee self criticism albanna feek defuñu ko ñu mun a defar suñ bopp lu jot rek ñu tuumaal suñ noon yi waaw noon yi ñoo ñu palaanal nangam waaw noon yi ba yónent bi ba ko yàlla yónnee ba tey nag ñu ngi sax ci di tuumaal noon yooyu rek te duñ ñun duñ criticiser suñ bopp te feebar bi ci ñun la feebar bi ci ñun la kon mbokk yi defe naa ne li ëpp ci waxtu bi jeex na loolu rek lañ bëggoon a tëjee e, waxtaanu gàmmoo wi nga xam ne ñu ngi ko doon di waxtaan ñuy ñaan sunu borom subhanahu wa taala lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu dëppoo <coughs> ak li neex sunu borom subhanahu wa ñu ubbi nag line bi léegi képp koo xam ne bugg ngaa dugg si e, xaw ma nag line bi defe naa mooy bu local bi 43739 10 43739 10 képp koo xam ne bugg nga dugg si ci eh, programme bi moo xam dangay ngay laajte wala nga xam ne <coughs> dafa am noo gisee sax nu bokkut ak ni ma gisee eh, lépp rek suñ dënn àttan na ko ñu déglu la waaw incha allah taala di ñaan rek képp koo xam ne yaa ngi dugg hmm, euh, bul di duggee xol maanaam kuy déglu ku ne bul dégloo xol waaye del dégloo xel waaw ndax <coughs> wax neexul kii wax itam dëgg yàlla li koy seetaan wala li koy déglu nit ñu bare lañ xaw ma techniciens yi euh, ndax euh, léegi tey ñu ubbi line bi pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dugg si ci programme bi ñoom itam seen àq la seen cër la pour ñu mën a dugg si ci line bi waaye dafa mel ni technicien si xaw ma dañoo am euh, tuuti problème ci line bi xaw ma allahu alam euh, waaye li ñu bugg a wone rek moo di ne euh, nekk benn mbir mu am solo la képp koo ci xam ne bugg ngaa dugg si pour Euh, ci li ñu doon wax danga ci am sa xelaat walla looy laajte eh, ñu ngi laa welcome eh, pour nga dugg si ci ci line bi waa mbokk yi incha allahu taala bon si féeg ba <clears throat> line bi duggee xëy na techniciens yi dañoo am tuuti jafe-jafe waaye balaw line bee dugg daal incha allah dinañu leen dig ne ci suñu waxtaan yi ñëw dina dinañu ubbi nag bunt bu am solo ñu ngi ko ubbi sax ci beneen